sama waa ji naa fay naa la alhamdulilah tabaski bi daal tubaarkàlla mhm. macha allah neex na loolu euh, yàlla nañ ko fekke déwén di leen ñaanal waa rajo bi di ñaanal waa réew mi yëpp yàlla na yàlla def jàmm bi jaay seede lu zodi non xar mi mbëkku ma ah. wax dëgg yàlla mbëkku ma waaye nag tubaarkàlla ah. macha allah daal kontaan na lool lii moom dafa neex ah. waaw dafa neex yàlla nañ ko mën di def bés bu ne at bu ne waaw ci barke yonent bi bu tabaski bi jeexee xanaa ñu fay rek waaye nag tubarkàllaa daal comme que tabaski bi jaral na leen loolu yàlla da leen ciy bindal yiw bindal leen ci yoolu ko añ makka yoolu tabaski farata la sunna la sunna yonent bi la tabaski moom tubarkàllaa tubarkàllaa feetu jullit yi feetu jullit yi la borom dafa ne doo amul tamit nga loo waaw waaye nag euh, ñaan tabaski ko rek waaw tabaski rek euh, tabaski daal euh, loo ci mën rek nga def ko pour am tabaski parce que santaane yàlla la santaane yàlla la ku ci mën a dimbali sa mbokk it ba mu am tabaski nga def ko waaw yàlla moo lay fay. maa ngi na lool. tabaski bi noo ko dundee. neex rek jàmm ak salaam. Uh-huh. waaw waaw kontaan si ba bëgg dee. waaw waaw loolu rek la. ba sa ñëw pare na. pare na kay moom laa moom. gis nga def tay baas nii dox sa toog. Ah, ah, la. robu robu dugal taxaw ñu wane <laughs> rafet na kaay doon. pare na. waaw waaw. ah nga koy sol. maa bu ma ñibbee rek laa koy sol. say wee tamit rafet na say wee baax merci merci di lay nuyu ma lay fay waaw waaw ñu ñëw gis la nga sañse lu rafet li nga sañse est-ce mën nga ma ko wax waaw li nga sañse mooy lan lii ban garaamu garaamu bu ban couleur la lii bleu ah ku la ñawal man Pa Abdou Karim Pa Abdou Karim noo dundee tabaski bi nag feetu tabaski bi neex rek ah, nu mu neexee noo sentiree neex neex bi xar yàppa bi yàpp bi bëri na. waaw xar la. Ah? déedéet. noo ko santee noo féetee sa famille ak sa yaay sa papa ak affaire yooyu. Hmm. foo jëm ni da nga kilifa nga. waaw hmm? ñu leen nuyu. waaw maa ngi leen di fay. ba yaa ngi fi jàmm. maa ngi ci jàmm. baal ma ak. baal naa la. yàlla nañu yàlla boole baal. amiin amiin. ay déwéni déwén. amiin amiin amiin à part ça noo dundee sa tabaski. tabaski bi sant yàlla rek dund dund dund si jàmm ne ginnaaw paas nañ ko si jàmm amuñ benn problème ni moom sant yàlla bu baax a baax. am na ñoo xam ne dañ koy dund ak seen i famille ñii di ko dund ak seen i jabar ñii di ko dund ak euh, seen i euh, voisins seen i mbokk yow nag kan nga ko dundal. man man moom instant yii nii dund gu ma ko sama famille quoi maa ngi ci marché bi nii wàcce gu ma waaw mais après damay dem nag du waaw damay dem dëkk ba waaw. may bàyyi événement yi feeg suba rek incha allah ma gontu dem waaw. mbaa yi ngay jaay mu ngi mi ngi dox. waaw waaw sant yàlla. waaw gars yi moom macha allah waaw. léegi yow lan ngay conseil suñu mbokk yi xamante ne dañoo leb ay tissus pour tabaski ñii leb xar pour tabaski ñii leb ay prix pour tabaski te tabaski léegi xool jeex na lan nga leen conseil ñooñu. ah waaye di rek parce que man dama koy wax sax sama boy bu ñu waxee ma la man damaa dépassé tabaski. yaa lan la may lan def loo la. jaru nga nekk fi di rey sa bopp li nga mën ngay def loo mënul après mooy lool waaw parce que li yemul si benn fan quoi après yeneen am na yeneen jour am na te te affaire yi dafa métti dund dafa métti boo jëlee li nga war a lëgg yëpp def ko si benn fan après da ngay waye di quoi waaw. yow daal bi ngay daw. waaw wayede bi lay daw de parce que du benn fan. soxna si ñu ngi leen. waaw ñu di fay bu baax. baal ñu wax. baal nañ la. yàlla nañu yàlla boole. amiin ñu teewee ko déwén yu bare. à part nan nga dundee sa tabaski. ah macha allah tabaski ji moom macha allah tabaski validé moom wax dëgg yàlla tabaski ji neex na trop macha allah. waaw ñaw yi tardé wul. déedéet ñaw yi tardé wul. man ah, mais tamit aussi tamit seen ñaw baax na. waaw xale yi ñëpp seen ñaw macha allah moom lépp baax moom. waaw macha allah ah. alaaji defal ma ñaan rek incha allah. <laughs> naka xar bi xar bi mbëkku la. xar mi mbëkku moom moom wax dëgg yàlla am nañ xar yu baax waaw macha allah. ay xaru yar yu baax macha allah waaw. léegi lan ngay conseillé sa mbokku jigéen ñi xam leb ay perruque ay tissus ay jasner magenris lan moo ko fi jar ak tëbës bi xam ne jeex na ba pare. ah gisuma ko de ku dugg si marché bii nii xam ne ku ko fi leb bu ñu nootee deux heures lépp loo defoon di nga ko réccu sa fiddu daal ba Cheikhul Khadim waaw dama leen di conseillé rek ne leen jigéen eh, ak góor waaw ñaari loxo mooy takk tubéy ñaari loxo moom mooy takk sër waaw man moom du ma fa am objet moom macha allah. waaw femme battante laa waaw macha allah waaw di sant yàlla moom moom bu wér a wér a rek wér rek ak waajur yi moom bu baax a baax a baax di leen ñaan rek ñu dolli ñaan gi na gis suñu bopp bu baax di ko yëg. kon gars nañ gaaw ñëw. <laughs> waaw incha allah. grand ñu ngi lay nuyu. neex bu baax a baax. Ah. bi lan la mën nga ma expliquer li nga ñaw. oui. mooy lan li nga sañse mooy lan. jasneer. mooy jasneer. oui nga dóor ko benn daamine noonu. si suuf loo si teg. maraakis. maraakis yu mel nan. weex mu ànd bi. waaw ah macha de. ñu ngi lay fay. baa yaa ngi si jàmm. maa ngi si baa xeeboo li nga sañse. xeebu ma ko mu nga sañse mooy lan. ah xanaa ñuroo waale rek. vaal vaal rek ah, def vaal bu baax. noo dundee neex rek. Ah. waaw foo ko dundee say famille wala say mbokk wala say. samay famille samay mag samay mbokk samay xarit ah. waaw. léegi lan ngay conseil ñi nga xamante ne dañoo lépp pour tabaski ñi ay cheveux naturel ñi ay tissu ñi loolu lan nga leen conseil ah loolu moom wax dëgg jaru ko. Ah. ay jaay sa bopp ndax chauffeur di dem di leb ndax lu xam lu ne ab benn fan la rek day jeex rek ngay dem di lebi chauffeur lebi ay yëre yi lay jaru ko ah loo am yàlla baax na loo amul yàlla baax na loo yàlla baax na loo amul yàlla baax na santal yàlla rek nga toog mbaa yow leboo dara lebu ma dara ah. lu ma def ñàkk ñàkk kase nga def yaa ko ñàkk waaw ah, soxna si ñu ngi lay nuyu lay fay baa yaa si jàmm sant alhamdu baal nañ la baal yàlla yàlla boole baal. amiin ñu fekkee ko ay déwén. nan nga dundee tabaski. ah neex na moom macha allah waaw. sa famille nga ko dundal wala sa borom kër wala sa far wala sa lan. sama famille. Ah. sama yaay ak sama paap. ñu gis nga sol sa premier attaque voile n'est-ce pas li mooy voile sa ñaw lan la. ah tamit xepp. xeeb naa lii. sa sa sa ay mees tamit. ah tamit li ñuy def dañ koy simple la lekk. ah waaw. di première attaque la wala deuxième wala dernière mu des troisième bi. kon troisième bi nan la war a mel. ah dañuy xool rek fu mu gën a oyofalee rek ñu demee fa. yow daa mel ne xar bi mbëkku la de. Ah, mbëkk xalaatu ma ko. maa ko daa da xam ni nga koy ni nga ah. la demee rek doo may wax secret boobu mu xool. <laughs> rek. Ah. léegi lan ngay conseil sa mbokku jigéen ñi xam ne dañuy dañuy dañuy leb ay ay mince wala ñii dañuy leb ay magin russe jasner palman cheveux naturel ñoo ñoo nga leen conseil ah xëy na ku nekk ak sa problème xam man salon damay liggéey salon looloo tax kenn ku nekk ak ni ngay doxee doo liggéeyoon salon di nga dugg si kaa yàlla tere te sama waajur nekk fi ah. yàlla tere du ma def loolu ndax samay waajur a ngi fi ah. du laaj sama far du ma laaj kenn sama yaay may jox wala ma liggéey defal sama bopp. liggéey jox sa bopp. na waaye doo leb. du ma leb du ma leb man bëgguma leb. waaw yàlla xam na ne leb moom bëgguma ko du ma ko def. léegi ñooñu leb tey pour sañse wala pour defar lu baax léegi ñooñu lan nga lañ wax. Ah, benn fan la daal après boo paree yow yaay wéetoog sa fay léegi da ngay def loo xamante ne antan nga ko bu ëllëgee nga mën a wéetoog moom ndax lii bi ñaari fan la du ñett bu paree yow yaayu wéetoog sa. say bor ñu ngi lay fay. maa ngi si jàmm. baal ñu àq. baal nañ la. yàlla nañu yàlla boole baal. amiin yaa rabbi amiin. nan nga dundee sa tabaski. waaw sant yàlla rek. sant yàlla rek dund koog dund bu bu léger rek. Mhm. waaw puisque xam nga Sénégal ku ne xam na ne fi mu nekk nii neexul. mais dund nañ ko puisque dugg nañ ci ci bisimilahi rahmaani rahim ñu génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin te comme ay jullit lañ. mu nekk farata ci ñun. jaamu nañ ci yàlla macha allah sant yàlla bu baax nag ñaan yàlla rek. bu déwee naree ñaaw yàlla na mel ni ren bien que ni ren neexul mais sant yàlla. sa ñaw pare na. ah bon ñawlu ma nag. ñaw xale yi pare na. ñawlu ma waaye ñaw xale yi pare na. dama ñàkk sama mag bu ma sa bu ma jege muy ajaratu daba booy. ñu bokk benn baay. ça fait même pas un mois. waaw tax na daal talu animatrice boobu. tax yooyu yëpp daal dañu dëdd yooyu yëpp daal. billaay def li mënul ñàkk rek. Mhm, ndax dañ koy jooy di ko xalaat lu bëree bëri. heure bi daan na fekk mu taxaw taxawaay bu rafet. donc xol yëpp tooy tey waaw ak suñu beneen rakk daal loolu daal tax na daal suñu tabaski ren moom macha allah waaye comme ay jaam lañ dañ koy sant yàlla rek waaw. soxna Ajaratu Daba Boye yàlla na suuf sedd si kawam macha allah ku nekkoon na ku baax ku bëgg nit koo xam te day reetaan loo nit. ku bëgg mbokk ku taxaw ay mbokkam barki yonent yàlla Muhammad fu ma nekk fekk na ma fa semaine bi muy décédé maa ngi ba Nouakchott mais ñu ngi déggante téléphone même pas une jour bi mu gaañoo jour boobu laa ñëw Sénégal man ñu am ci lu ñu naqari lool. mais nag comme ay jaam lañ daal billaay ñu lu dul rek sante ko suñu borom mais daba xajoon na fi ndax jëf na fi lu rafet ku mu bokkal dimbali na la daba xolam day sot ñun noonu lañ mel waa ay mbooyeen lañ waa gis nga ko mu ngi noonu mais macha allah lan ngay conseil ñi xamante ne tabaski bi dañuy leb ay machine russe jasner ñi leb xar ñi leb cheveux naturel te tabaski alors deux heures rek mu léegi loolu lan nga la ñuy wax wallaay du ma ko conseillé sama benn mu jeeg puisque li may wax ñun léegi sax ay mère de famille añ waa taluñu loolu sama doom rek tey mu ngi jooy ndax ñawam bu parewul mais dama ko da nga war a sant yàlla sa ñaw parewul am nga ensemble nga sol sa ensemble puisque man je vis selon mes moyens damay dund ci kaw li ma mën jaboot laa sësuma ci kenn donc li ma mën rek laay def li ma mënul duma ko def d'accord maak ñooñu duma leen conseiller loolu xooluma sax ñuy def loolu man ndax gëwuma loolu mhm, gëwuma ko mhm. merci beaucoup loolu ziar bi wér wér sant yàlla bu baax ah fet bàyyi nii rek ah, fet moom saa bu ñëw moom na fekk ñu am yaram ak rek ak fekkee tamit yor oto yoo xamante ne tamit encore territoire Sénégal fu dem moo lay sant yàlla bu baax a baax ànd boobu la ñu mën ñoo ñibbi clients yi leen fi nekkal man maa ngi bàyyi sama kër samay doom kii tamit c'est la même chose xoolal fi ñu añee si garage fi lañ añee suba jàmm tant que clients yi jeexul mën a jëm ñibbi parce que ñun clients yi fi nekkal fi mooy garage Mbour Thiès garage Youssou Thiam mooy garage bi Mbour Thiès mooy fii loolu la daal non xam moom bëgg añ ko moom nga fekk may jàmbat nii naan kër yi laa bëgg jàll maa fu mu toll dama a jóge mbuur nii dama ñëw fekk gars yi añ ba pare damaa xiif lool moo tax ma ne la mën ñoo wax parce que fu mu toll yëpp ma nga fekk ma wax léegi nga lu amul seede baaxul moom nga fekk may wax kii léegi nii nee naa Tabaski jéem na képp ku si leboon am xar ba nga tiimee yàpp di lekk soo xampee sa xel nekk si yàpp xar ma nga leboon dangay ngay suur parce que tabaski jigéen la tabaski moom bàyyi yàlla tegul kenn lu mënul soo mënee da ngay def soo mënul da ngay bàyyi man ñaari jabar laaya benn xar laa jënd moom laa entre moom laa mën benn xar laa jënd boole leen ko yéene leen ko ñoom ñaar su ma ko amuloon tamit encore dama xam ne aw ma ko jàpp si yàlla waaye man du ma forcé ëllëg si biir am problème yoonu président ma fekkoon gendarmerie xel xalaatul loolu man man du ma ko def moom lu ma am na duggee man moom mosuma rey man du ma rey ginaar naa ma rey dara man moom rey moom bokku sama affaire waaye moom ku rey jox ma lekk ma lekk man moom lekk la rey fi